ñu àggale parole yi dem parole yi Xaddaafi yi mi nga xam ni day gërëm jabaram waaye day gërëm nag ASC bi ñoom ñoom ñoom Mbacke Massamba nga ne taat Moustapha nga ne taat Guèye Ndiaye Basse nga ne taat Sëñ Xaadima nga ne taat ASC bépp ñu ngi ñuy toog waaye Serigne Saliou ngi di jàmbaari Serigne Saliou Mbacke nga dem buur borom njàpp nag borom waaye nag jàmbaar jóge ba Tiwaawan ca roodu Serigne Babacar Sy waaye nag bu mu demee ndànd borom mbaari tam borom maa bi nga xam ni maam Joon alxuraan la maam Joon kër fuura la ngay nit ku baax di ba demete waaye dégg ñëw na ci nit ku baax di kenn waaye Xadaafi ni dafa mën a gërëm jabaram Xadaafi nee na bu jawal waa déglu ma góor góor góor frère Adama mais maa wayloo Moussa Dior waaye Cheikh bisam nii la mën a mel ndax Cheikh sa mbaax sa waaw ñun naka dalgaan. nga taxaw baaxul dara da ngaa taxaw suñu kanam nag def lu la neex. xar ñoo ñëw ndaal moo juma moo jaaxle xar sëñ bi moo ñëw moo dëggee ñëw ndaal moo juma sama téléphone di juumul ne yaa ko xaalisam ne même buy sol verre yi yow même buy sol verre yi yow damay toog soxna si non non def leen nag may leen ma rek dama leen ñu liggéey da ngeen ñu bàyyi seen yoon soxna si doo dellu gannaaw tuuti moto moo ngi seen gannaaw de alaaji moto moo ngi seen gannaaw de yéen doo leen dégage bi mu mën a jaar noonu ci bunt bi dégg nga léegi yow da ngay yow yaay avancé nga balisé rek dégg nga ma ma kii ma toog. non c'est bon man fan la ñëw ci biir la jëm balisé balisé ko. xaaral xaaral non jiitu ñu yow. Ibrahima ñëwal ñëwal ma ko. aywa aywa ma baal ma jaar. waaw da ngay am ci biir saa bi. jëlee nga jël. bu leen tax ma daanu fii waaw. jafagul sa booy mooy. Ayup, ayup.

Jàmbaar boo wàccee téléphone bi jàmbaar. Tege ñu loxo bi nii tege ma loxo bi nii. Tege ma buge bi tege buge bi noonu voilà. jox ñu nii jox ma nii ñaari aw indil ma ko jox ma ko jox ma ko nii ñaari ñoom nii. na ñëw si man ma xool. ndax ndax am seen. s'il te plaît doo ma teel col bi nii rek teel ma col bi. sigil nag voilà. tey ko nii tey ko nii na gën a jege na gën a jege nii rek. lii léegi da ngay képp nii. tourné na ko tourné na ko. voilà képp ko noonu. nii laa bëgg sa poum bi. voilà. tey nga ma benn loxo suuf bopp tey nga ma benn loxo suuf bopp jëmale. génne loxo bi voilà. non dama ne dama. mais booy dafa dafa wéeru ba mu. wéeru affaire bi foo leen teewul ma jege naa. damay jege naa damay jege naa. voilà loolu baax na. voilà def ma tudd waaw dama doon téeméer noonu. cinq minutes cinq minutes voilà loolu baax na. cinq minutes photo cinq minutes photo. tegu bopp tegu bopp. tegal na ma loxo nii ci bopp bi tegal ma bopp loxo bi voilà. xoolal fële xoolal fële xool ma fii. dama ma gis ci kaw loxo bële rek loxo bële bële. voilà. taxawal ma teel ma ko ñaar la teel ma ko ñaar la. ñaar la voilà deux minutes deux minutes deux minutes. vidéo ba léegi. ah taxawal ma taxawal dégg nga. doo taas li nga wala ah nii nga bëggee. voilà daa ma si suuf noonu rek. foo noonu si suuf voilà. lamb bi ko taal ko sa bopp bi indi ko sa bopp bi vidéo grave. mënoon ne may kay génnoon leen kay. dafa bari war ngeen a dem dem leen yóbbuwaat si kanam bi tuuti. ah bibliographie taaluñ ko de. Serigne lan moo ko taal seen seen seen dégg ñoo ko taal. ay gars. waaw yow dàqal ñi rek ñu liggéey. c'est bon yow ñëwal fi fee taal sa lumière bi ñëwal. ayca ayca ayca yow defalal sa liggéey gaaw. gaaw eh saa gaaw na yow. saa yi ma leen ko am. yow moom vidéo trois minutes vidéo trois minutes maximum. Ah. voilà ok. vidéo rek mu jeex vidéo mu jeex. après ñun ñee mën a dugg. xoolal bi gars yi ñooy dugg si quoi. Babacar doo ko soxlaa dama. xool ma ne jaar. xoolal bi ma xool. jaar jaar xoolal bi jaar xool ma. saa waay saa waay saa waay doo ko soxlaa. jaari xool na jaari jaari yow rek lay xaar yow rek lay xaar billaay takk gi takk gi takk gi takk gi